nekk si bi xamuñu woon dara moo tax il faut ñu ñëw liggéey si capital bi lu mel nii. ma ne xoolal lu mel nii. baal leen ma de sax. eh eh soxna si. ñu gisee. du yaa ma soxla. fekk si ma. Eh, soxna si. nga def. maa ngi fi yaa na nga yitee. yitee yaay na nga def yaa ngi fi jàmm. eh jàmm sant bu doy na damay dem dafa tàng doo wax gaa. wax dëgg. eh si. sori ñu ñu moom xanaa doo sangu. ñun ñun suñu dëkk bi am na ay géej de am na ay géej. voilà ba ngay dugg sangu foofu. soxna si ma moo sa ñaaral lu mu um de man. ma ne ma ne soxna si dama bëggoon ah yow nga xotti sa xol mi ma tamit ma xotti sama xol. nga xoot ci sa xol ma xoot ci sama xol ñu def ko si benn mouchoir takk ko ba mu dëgër dem sànni ko si géej waa doomu ndey mu doon <laughs> waaw <laughs> yow <laughs> Mariam xanaa tiim laa def yow fan nga jógee dëkk bu ñuy tudd juggal nga génn fa la mën a jógee moom foofu rek nga mën a dëkk xam nga li ma lay xamal duma sa morom sa caay ju ji lu kañ a si wes bu bon yow muy def ak caayam ji di mel ne lu bu ay nagam réer. yow lii la. doomu nday même ma ñëw xoolal ma xam ne ku ci dugal juróom mu réer ah satu. Ah, de. man li may wax yéen ñi laa ko wax. kii bu ngeen koy wax doo leen ko ko wax. waroo leen kaa wax li ñu rek ngeen a bàyyi ngeen da ngeen changé seen jikko seytaane nga man kii ma ko yàqal aw maa moom dara dimbali ma man man daa xawma si dara kii da ngaa soxna si bàyyi leen bàyyi leen soxna si man tamit incha allah lu ma mën a def pour ma am xaalis di nax jigéen ñi dinaa ko def dinaa ko def pour na man may nax jigéen ñi lii metti na ma lool xool liñ ma jël xool liñ ma wax tey lii metti na ma ay ma dem rek